Touba ci kanam. tur wu doy waar la. man bi ñu jógee rek. laa daal di xalaat ne Touba ci kanam nii de. du foo xam ne benn kuréel mu si jóg. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri man abaat. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki. Nuuru Daarayni Touba ca kanam mbokki Espagne mbokki àdduna bi ñoo ngi leen di siyaare bu baax man la Malick jeng coordonnateur général ba Espagne ñu nekk fii ci bureau Touba ca kanam tey fii ci Touba di nuyu mboolem ñu nuy dégg ñëpp di ñaan sun message fekk leen ci jàmm euh, xanaa toog ak suñ jëwriñ sëriñ Massamba Dieng bàcc féetewoo Palma de Mallorca euh, ñu toog moom fii tey ngir ñoom ci ndegaloolu sëriñ Adi Touré ñu andi woon seenub liggéey maanaam seen addiyee ji nga xam ne moom lañ doon jébbal Touba ci kanam tey jii mu toll ci eh, limu 4 million francs fa ah loolu nag la ne woon dañ koy eh, maanaam biral jawriñ yi rawatina ñi nga xam ne ñoom lan bokkal nekk Espagne mbooleem région yi nekk Espagne kenn ku nekk Euh, xam ne euh, waa Palma wax dëgg yàlla macha allah dañ leen di ñaanal di ñaanal mboolem ña nga xam ne ñoo fa féete jàpp ci liggéey bi rawatina sëriñ Aadi Touré mi nga xam ne moo président daayira bi waaye nag rawatina sëñ bàcc mi nga xam ne si euh, wax dëgg yàlla dox na ci tànk yu am solo yu yoo ne si tey résultat yi wane na ko boole ko mu xeeb ko lool kon loolu xam naa sëñ Massamba dañ koy bàyyi ak kàddu yi moom it mu jàllale ay kàddoom xam naa di soññi suñ bopp rek di soññi kuñ bokkal liggéey bi Touba ca kanam ndax euh, noonu ko sëñ Malick waxee 4 euh, millions yi ñun waa Palma xeeb nañ ko lool euh, li tax ñu xeeb ko it du jëfi daanukat du waxi daanukat dañoo xam Palma yàgg faa yëngu ndax bu ma juumul maaw rahmati treize euros la te treize yi am na huit mille quatre cent daaw <clears throat> euh, te yaakaar naa treize euros fu mu amee huit mille quatre cent vingt huit euros kon war naa mën a passé lu néew néew néew dix million wala douze millions ci ci xalaat kon moo tax ñu xeeb ko waaye du dañoo xeeb liggéey bi waaye euh, na fa mbooloo mu mel ak na ñuy yëngoo ci Maawu Rahmati bu ñu ko yëngoo ci Touba ci kanam rek yaakaar naa ne lu néew néew néew kon dix millions ko na fa mën a génn kon euh, ñi ngi soññ suñ bopp di soññ képp koo xam si ñu ngi bokk nekk Palma ak képp koo xam si yaa ngi nekk ci àdduna bi ñu gën a jàppaat euh, Touba ca kanam ndax euh, kenn ku ne gis na seen liggéey yaakaar naa ne su fekkonte ne yem nañ ci poste de santé yi ñu liggéey rek nga xamante ne si da nga faatu lu yàgg ñu di ca faj ay nit ñoo xam si dañoo waroon na ñàkk seen bakkan ñu jógaat di jaamu yàlla kon yaakaar naa ne loolu rek doyoon na ci liggéey sëkk rawatina di seetal dëkku Serigne Touba bi ak yeneen ak yeneen kon daal wax dëgg yàlla ñu ngi soññ ñëpp ñu bokk ci ndax des na lu bëree bëri boo déggee zone bi ñu bi ñu wax ne moom la ñuy am parweer weer euh, ci ñaari ci million ñaari millions yu taalibe yaakaar naa ne manqué na lu bëree bëri bëri. tayit wóor na ma ne taalibe yi ñu ëpp nañ million moom kon daal képp koo xam si ci rek ñu ngi lay soññ nga bokk ci ñëw ànd ci liggéey bi ndax liggéey moom ku ci jàpp dana dem ku ci jàpp mu dem kon na ci ñëpp jàpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Touba ci kanam. tur wu doy waar la. man bi ñu jógee rek. laa daal di xalaat ne Touba ci kanam nii de. mi abijaayi